alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil aalamiin wasalaatu wasalaam ala asrafi almursalina ayni rahmati rabbaniyati wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaari alazim warda allahuma an saxbi alaxyaari wa taabiin alabrar wa man istanaara bi anwaarihim wa salaka maslakum ila yawmi ddin eh, mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, ñëwaan nañ ak yéen ci dars biñ ñu siq ak mbokki taalibe fii ci daara ji tey nag euh, mawduu tey bi ñu ngi koy jumoo ci waxi borom subhaanahu wa taala wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu wa naqsi min amwaali wal anfusi wa thamaraati wa bashiri saabiriin laay moo nekk incha allahu taala mawduu darsub tey bi borom bi subhaanahu wa taala mu ne dañ leen nattu bi in la wax min al xawfi ci dara ci ragal borom yërmande la xam na ne léppi ragal attanuñ ko moo tax mu ne bi shay'in min al xawfi mu teg ci ba tey wal juuxi ak xiif mu teg ci ak wàññeeku ci alal ak bakkan mu mujjee wàññeeku meññent waaye yàlla bu nattoo jaam bi mi ngi déglu xol ba kii day jàmbat tuumal mbindéef ni moom kii muñ sant borom bi ne wa bashiri saabirin mbokk yi nattu yaa ngoog yàlla dina indi ragal mu dugg ci xol yi wala ci xel yi yàlla dana nettoo xiif léeg-léeg nga jóor alal mu ñëw wàññiku léeg-léeg ak njaboot mu ñëw jël kenn yóbbu léegi léeg timit nga bay ba sottal wala nga jëmbat ba pare ba ñorle mu xëy jaar fa ak dogalam subhaanahu wa waaye su boobaa la war ab jaam mooy muñ ba pare sant su fekkee dégg na dëgg-dëgg lan mooy dogal tombab tey bi nag eh, wa samaraati wàññeekug meññeent mooy nekk darsoob tey bi insha allahu taala nattu tegtalewul ñàkk cër ci borom bi bal dafay tegtale ne kiñ ko teg borom cër la ak i na toom borom xam-xam yi dañoo xaaj nattu ay xaaj yu bari nattu dana ñëw pour raaf bàkkaaru jaam bi wax na ci xadisu muslim maa yusibul muslima min hammin wala xusnin wala wasabin wala nasabin wala adan xatta sawkata yushaakuha illa kafarallahu biha min xataayaaw illa kafarallahu biha min xataayaaw mu ne du jot ab jullit ci jaaxleeg njàqare jàngorook coono ak loraanga ba ci dëgg bi la jam sax illa kaffara bi biha min xataayaaw kon bàkkaar booba natt booba dafa ñëw pour yàlla kaffaaral la sa ñaawteef kon ndeke gaañu gaañu ak yenn njàqare yeeg tawadi dafay raaf bàkkaar kon nattu dana ñëw li maxwi sayyiaati mbokk yi nattu dana ñëw ba tey li raf it darajaati yonent salaa sallam ne ashaddu nnaasi balaan al ambiyaau thumma al amthalu fal amthalu famaa yabraxu al balaau bil abdi xataa yatrukahu yamshi ala al ardi wa ma alayhi xatiyatun yow dama ne kiit gën a tar ci nit ñi nattu mooy yonantu yi topp ña topp ci ñoom topp ña ca topp mu ne nattu de dañ ci jaam bi di ko jàllar bi ba mu xëy ba ko muy dox ci kaw suuf te amatul benn ñaawteef suba mu dugg ci rangu ko wega kon nattu dana ñëw li raf it darajaati waaye nattu dana ñëw pour yàlla jeqee weer ga weer yi xam ñi jullit dëggantaan ak naafiq yi ci biir mbooloo mi wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yaalamanna allahu alladina sadaqu wa la yaalamanna alkaadibin yàlla mu ne nattu woon naa ña jiitu woon pour xamal ni ñi ne ñii ñoo dëggu ñii ñooy nar kon nattu dana ñëw pour jeqee natt dana ñëw mbokk yi mu nekk ay dumay neen wala yaasu billah ibnu maaja soloon ak ahmad ci xadisu thawban radiallahu anhum jamian yonu salaa rajulu la yuxramu rizqa bi xatiatin yaamaluha nit danay fëgg ay buntu mu të ubbeeku ndax bakkaar bu mu def tëj kon bakkaar danay gàllankoor nit danay feeñ feeñuwaayu mu tawat feeñuwaayu mu tëju feeñuwaayu mu am ay jaaxle fekk duma moo ko waral kon natt dana ñëw ngir bàkkaar mi màqati aatihim uxriqu mbokk yi xeetu nattu yaa ngi noonu bi ñu alquran jàngalee nag ci laaye ji wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi la njëkk a tudd wal juuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa thamaraati wa bashiri saabirin mu mujjee ak thamaraat lan mooy naqsu thamaraat suuf si gàntal na ndax jaamee gàntal seen borom zahara fasaadu fi barri wal bahri bima kasabat aydi nnaas su fekkee yàlla oo nañu ñu gàntal ko asamaan gàntal ñu nit suuf gàntal ñu ci lañ tool wàññeeku meññant kenn ku ne xam ne ne nit li muy xaar ci mbayam mbay mi joxatu ko boo jëmee ci ay garab la ngay xaar ci ay meññant garab yi joxeetuñ ko te li ci gën a kéemtaane meññeent yu bari bari bari rag nañ amatuñ yaa ma ka néew meññ nga demeetut noona ya meññe ka néew seen caf nga demeetut noona lu ko waral bakkaari jaami yàlla yi su ko defee nag wàññeeku meññet a ngi noonu ba tey meññetam suuf borom xam-xami ci lañ bokk ñooy meññetu suuf kenn ku ne xam na ne rabbaani yu ne yi ñu ngi tàggoo bu baax a baax a baax des na fi ulamaawul lisaani mais ulamaawul janaani ñu ngi commencé manqué koo xam ne la muy wax bu jëfee firiku ci wét ci wéttaliku mbokk yi mi ngi bari mi ngi commencé néew bëri woon na koo xam ne làmminam du uruj xolam xolam du uruj ay cëram ñoom ñoom ñu déggoo ommatul yàlla zaayaram mooy baatinam baatinam mooy zaayaram wétalikoom ak wéetama yem mbooloo ñëw ak mbooloo wan gannaaw a yem dëgg-dëgg mbokk yi loolu meññeent la bu bëri woon ci jamono mi ngi commencé rak yal na yàlla delloo si waat te jàngañu suñuy damm damm ñuy jàng nag wàññeeku meññeent buñ jàngatee bu baax seetlu danañ xam ne samaraat mi ngi commencé manqué bu baax bi njëkk mooy samaraatul umri dund fan dana gudd te du am meññeent dund at yu bëri bàyyi lu askan wi luñ mën a jariñoo sa gannaaw ci xam-xam wala njub goo fi tàllal dëgg-dëgg fan woowu amul meññeent jàng nañ ci jamono suñ magi démb yi ñoo xam ne ay garab yu gàtt la doon waaye bari meññeent lool mën na mu ci fan fan yi seen fan daana gàtt ñu ëpp ci ñoom boo seetee alximaam Nawawi boroom xam-xamu xadis ko yaatu lim xam lu bari loolu fanam guddutoon abdurahman al axdari rahmatullahi alayhim jamian borom mantiq ba waxoon na ne wali bani ihda wa ishrina sana maadiratun maqbulatun mustaxsana fanam yi guddutoon waaye meññitam bëri woon nañ yoodu sa waxoon na ci xadis ba ne man taala umruhu wa xasuna amaluhu safaan ba wa charrukum man taala umru wa saa amaluhu ki gën ci yéen ku am fan wu gudd lool jëfam rafet yal na yàlla boole ñu ci ñooñu kon mbokk yi thamaraatul umri commencé na wàññeeku bu njëkk da ngay gis ay xale yu ndaw nga jàng leen taarix yàlla dina def ci ñoom ak ak mat wa aataynaawul xukma sabiyan yàlla daana ko def ci ay yonantum ak ci ay waliyum e, fa lama bala balax asuddahu loo ca teg rek aatay naaw ngë ne le commencé sotteeku asud mooy quarante ans ci li ëpp ci waxi borom xam-xam yi léegi nag nit day am quarante ans di xale-xalelu ñun xale yi ngay dégg muy wax te am na ñeen fukki at xam leer na ko ne ma ngay seen frontière àllaaxira waaye bañ na rek ndax bakkan def boppam xale kon dëgg-dëgg ni ci ñun fukki at lañ daa taalifi ay téere di fi samp ay njub yaatal mbaax lëmbi àdduna ci baax ak kowe léegi nga am ñeent fukki at mel ni liir bu ndaw kon samaraatul ilmi samaraatul umri mbokk yi commencé na wàññeeku yal na yàlla jàngal ñu bi topp mooy nag samaraatu taati alquran boo ko toppee mbooleem jaamu yàlla gu ñu digal teg na ci wetam meññent yàlla ci yërmandeem lum la sant am na fay gu gaaw am na fay gu diggu julli mi ndey jaamu yàlla yi inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar gis nga lam ca teg ci ay añ waa ji dëkkee julli ba léegi su busalmalee uti place bu ñuy bone ji te benn waxtu du ko raw kon meññitam jaamu yàlla mi ngi commencé manqué ca koor kutiba aleykum siyaam añ ba mooy laalakum tattaquuna waaye ci biir koor gi sax bala moo kooram man ngi ko bëgg a jeexale ci ay safaan suy suy jeexal kooram ma nga joxe rànd ci ay fowukaay ana tattaqu naja kon meññeetam jaamu yàlla mbokk yi commencé na wàññeeku kenn ku ne xam ne joxem alal muy azaka muy saraxe dañ ci daa laabalee bakkan ko ci sellalee xuz min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha léegi nag nit ci biir njoxem alal ca lay bakkan ba di gën di tilimee kon ana tam joxe kon wa samaraate nga mbokk yi ba léegi kon samaraatu taati mi ngi commencé wàññeeku nga gis ne nit daa dem ca baytulaayal xaraam ba pare di duggaat ci néeg yu xaraam yi gannaaw gi te dëgg-dëgg boo demee ba ci baytulaayal xaraam yàlla nangul la soo génnee foofa falaa rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xajji su ko defee kon mbokki taalibe yi ñu ngi ci rek wa samaraati ci natt yi nga xam ne yàlla wax dañu ko nattoo muy wàññeeku ba ci wàññeeku meññant samaraatul ilmi commencé na wàññeeku borom xam-xami làmmiñ yi bari nañ mais borom xam-xami xol yi ñi nga bëgg a néew yal na yàlla jàngal ñu. alquran waxoon nañu ci melokaanu yahuud yi mu wax leen ñoom mbaam ñoo yem ci sëf ay téere ñàkk caa jëriñu mooy ku jàngalu ne te jaaroo ci muqtadal ilmi jàng nga ne jëw baaxut moo ngi naa ne attaaye da tukki dépare réew ak réew di jëw ba àgg fa nga jëm te mbooleem nas subuy wax ci jëw yaa xam nga ko jàng na ne xeeb jaam yàlla yi baaxut sa waxtaan yépp mooy kenn dara yow rek yaa tekki dara loolu feebar la jàng nga ne añaan baaxut nanguloo kenn mbaaxam amul kenn koo nangul ngéneelam ku ñu wax yaa ngi xool ayibam mel ni weñ góom rek ngay wër ci waa ji loolu feebar la jàng taxut nga mucc ci jàngoro yooyu kon meññeetam xam-xam mbokk yi commencé na wàññeeku diine ñetti tànk la am al nga xam ne ruuxu la yaram ak mbalaan nu ànd ñoom ñett ñii noonu la islaam taxaw taxawaayu ruuxu nga xam ne bala wax dara da nekk jullit ba pare ñu doo ko wax yow leneen waaye imaan ñëw waaye ixsaan ñëw imaan ñëw taxaw taxawaayu jëmm yére lum for for for bu jëmm amut fooraayam du feeñ ruuxu laay wax bu fi jëmm nekkut du ñëpp ko mën a jëriñoo waaye ruuxu dafay feeñ ànd ak jëmm dund am waaye jëmm lum taaru taaru bu solul mbalaan kenn du ko mën a xool ñoom ñett nii nii lañ àndee da da ngis ku jàng lool xam ne islaam am na ñetti garab yoo xam ne benn bu ñuy meññ na ba sëq lool am njëriñ bi njëkk mooy at tawbatu al istiqaamatu at taqwa nit dana ko jàng di ko détaillé waaye xam na ne lislaam moo jur tawbatu waaye ba léegi mën na tuub ci ay ñaawteefam keroog bu génnee ci géej ak mbon pare na suubu ci geneen géej te xam na ne tawbatu meññet la ci lislaam mën na ko waxee mais ba léegi tuubugut kooko kooko amut am na garab gi mais amul meññent xam na ne istiqaamatu moom rek la ñuy wër lu coow li bëri bari bëri jub lañ soxla yoon wi gën a jub la ñëpp di wër jub yàlla moom rek la bëgg ci ñun ihdina siraatal mustaqim mooy genn ak ñaan ci faatatul kitaab xam na ko waaye ba léegi yoonam ci jub xam na ne lislaam moo jur taqwa yàlla rënk ci mbooleem lu baax ci àdduna ak alaxira muy bunta bépp yiw waaye mën da fexe ba ragal yàlla su nekkee ci mbooloo daal jub su wéetee jubadi ta xam na taqwaale mi jariñ xam na ay xaajam waaye mën fexe ba ragal yàlla kooku am na garab gi waaye amul meññeent mën na dem ba xam ne imaan moo jur sidqu jur ixlaas jur tuma niinatu waaye dëgguwut su waxee yow léegi la wax léegi mu génn ci lam wax ca làmminam dëgguwut ci cëram lam fas ca xolom bokkut li muy feeñal ci cëlmaayam kooku même bu xamee ne iman moo jur si dux jëriñoo ko amul ixlaas su nit ñi bëree mën naa joxe alal soo ko ñaanee ci wéetaay mu jox la ngant soo ko taggee mu sawar buñ ko fàttee tudd mu guux ay lexam kooku même bu même bu xamoon ne ixlaas doom la ci al iman amul ko njariñ attuma nii natu nit dana jàng xam ne dal googa lañ sàkku ci jullit li yatma ina qalbi alaa bi dikri laahi tatma ina al waaye am na ko xam ne fii ak addunaam jagut du bég raddu bil xayaati dunia wat ma andu bi a soo demee ma xam ne yow ci adduna rek nga mën a bégee keroog bu la jeyee bàkk la keroog buñ la joxee jublu la nga nekk jaam yàlla bu sell waaye keroog bu la noppee jox noppi laa tagg noppi laa bàkk nga ne gars yi dañ may xeex doonte xam nga lan mooy tum aniinatu am nga garab ga mais amu ko meñet nit dana ma xam na ihsaan moo jur al muraqabatu wal mushahadatu wal maarifatu waaye foog la wul yàlla liy rot ci xol bi mooy la neex bakkan bi amul benn xaatir bu ñaaw bu ñëw mu xeex moom lu ko bakkanam bàkk xem na ko te moom xam na boppam waaye foog la wul yàlla li yàlla xam ci moom du problème mais li muy nëbbu nit ñi loolu mooy problème am dëgg-dëgg loolu feebar la yàlla yàlla jàngal suñu suñuy damm-damm kon mbokk yi maa ngi ci wàññeeku meññetu xam-xam nax su samaraatul ilmi su ko defee na su boobaa mën na wax ba jataay bi fees waaye njubug ruuxu du jugee ci ay waxam heure bu waxee pomp lu ak rëy heure bu waxee feebar loo sa xol heure bu waxee koo xool ayibal ko su boobaa yahdi wala yahdi coow li bëri na mais du jëmman jub ci xol wala ci ruuxu inna na al aswaati la sawtul xamiiri kon mbokk yi maa ngi ci wàññiku meññet gu ñu yàlla nattoo ci jamono wax naa la ne thamaraatu taati thamaraatul umri thamaraatu taati thamaraatul ilmi thamaraatu suxbati nit bu toppee morom ma njëgg mooy mu jox ko yàlla yàllaay ruuxu yàllaay xol yàllaay cër ruux ko yàlla xoli am jikko yu kowe cër yi nekk sunniyu bi maanal kalimati kon mbokk yi tamaraatu soxbati commencé na wàññeeku nit dana ànd ak nit ñu tuddee ko sëriñ nga jàngee ci moom kañaan jàngee ci moom xëccoo nampee ci moom xeebaate nampee ci moom rëy te kandoo lii la doon feket tey nag nit dana ko jëlee ci kandoo bu ko yàlla dimbalewut illa man rahima rabbuk yal na yàlla jàngal ñu kon mbokk yi nattu yaa ngi noonu wala nablu wannakum bi cheyin min al xawfi muy benn wal juuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa thamaraati ñu ngi ci naqsu thamaraati al umri wa taati wala ilmi wa soxbati kenn ci saalixoona yi dafa amoon jabar jimmelut ni mu bëgg suñ ko bëgg a waxtaan loo ci ay bi soxna si mooy leen nit du weer ak njabootam keroog bañ tàqali ko bañ tàqali ko ñu bëgg ko def waxtaanoo kaay mooy leen déedéet nekkoon na suma biir kër ma suturaal ko comme nekkatut sama ron noppe woon naa ci moom ba muy nekk sama biir kër bi mu génnee sama kër damay nopp damay wéy di noppi ci moom mbokk yi Kando ngoog dafa la yóbbu ci jikko yu kawe mais doot waxee xam-xam yi fi mu toll manqué tuñ ay waxkat ay melkat lañ manqué koo xam ne bu noppee mi ngi fiir alxuraan ci ay soppandikoom su noppee xadis yaa ngi rot ci ay soppandikoom loolu lañ waaye indi riwaayaat waxtaan ci maraati yeeg axwaal yeeg manazil yeeg maqaamaat yi ah, yéematut jamono li yéem koy mooy ana ko lewat ana ko dëggu ana ko sell ana koy wétali ko yàlla ana ku tabe ay na rabbaaniyuuna loolu la ñuy jooyle ci jamono kon mbokk yi meññetam xam-xam meññetam kàndoo commencé na wàññeeku nekk ci keppaar ku kuñ naan borom xam-xam la te ba léegi xame baada ak xab la te ba léegi sa faratay jëmm xamee ko kon dëgg dëgg meññetam kàndoo commencé na wàññeeku kon mbokk ñu ngi ci wàññiku samaraat soo defee nattu yi nag dafay sotteeku ci kem ni jaam yi di tooñee seen borom nattu du am mukk ndare bàkkaar moo ko waral bàkkaar du tegee ko mukk ndare tuub moom moo koy waral kon su ko defee nag Cheikh Ibrahima jàngaloon nañu ne jaam bi am na ay waxtu yoo xam ne ñeent la waxtu taaxatin aw maasiyatin aw niamatin aw balaayin waxtu yu nga nekk di topp yàlla waxtu barke ngoog waxtu wi waa ji nekk di mooy boromam waxtu am gaafa ngoog ak waxtu xéewal ak waxtu nattu benn bu nekk Cheikh Ibrahima mën am na ay teggin mu ne teggin waxtu jaamu yàlla mooy su uudul minnati xam ne ferenkulaay gi ferenkulaay ci jàkk ji di jàngal Alxuraan waa jëre toog ca baar ba nga sant yàlla ne lii xéewal yàlla la waaye du samay pexe dégg nga du sama yaa bopp mooy su uudul minnati nit ki bu demee ba ndëggum rëcc liy teggi nag mooy na tuub su ne xéwalam na sant borom bi su nattu amee na muñ mbokk yi ñeenti waxtu yaa ngoog benn bu nekk loolu mooy tegginam e, nattu nag yàgg na ci jamono doot ne nit ki dafa ñàkk cër moo tax yàlla indi xiif walla indi mbas wala indi yu waaye yàlla nattu na ay jaamam xadiman wa xadisan na ay nattu bi ci gën a métti mbokk yi mooy meññeetam njub mi commencé wàññeeku tey ci jamono kon darsu bàngoog e, ñu doon jàngale dara rek ci wasamaraati wàññeekoog meññeent ci athamaraatul xissiya wal maanawiya mooy meññeeti garab yi ak meññeeti xol yi garab yi bëri na ci xol yi waaye meññent yi bëreetut ci xol yi garab ak xam fi garab ak laminu tinkeeku ci mën a leeral la nga xaman fi mbooloo mbooloong fi dara fi lépp ay garab la waaye boo settantalee meññent yi taxoon ñu ut yooyu mi ngi commencé wàññeeku yal yàlla jàngal ñu kon mbokk yi dar subaangoog lu ci rafet yàlla yàlla boole ñu yiw wi lépp lu ci am manqué manqué dootoon suñ jubluwaay jaam doomu aadama moo nekk feeñoo waaye manqué euh, ñu ngi koy jégal suñu borom ndax bismilaahi ni'mal wakiil di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ci réew mi lépp luy fitna lépp luy mbas lépp luy ay gàllankoor yàlla borom yërmande la yàlla na bu yàlla toppee suñuy ñaawteef yàlla na yàlla jëflante ñun bi maxdalut fihi wa rahmatihi wa tawfiqihi wa karami wa nasri bi jaay mawlana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu